on a vu ministre de la République taxaw euh, dans un mag dans un journal. oui waxal rek Ismaïla Madior Fall le dans un journal de la place ou bien oui. dans un journal africain. Oui. qui que effectivement c'est ça que la condamnation. est définitive est définitive. que loolu ministre su ko waxee waxul xam-xam en réalité dafa wax waxu partisan la wax mais boroom xam-xam yëpp yi nga xam ne vraiment kon xam nañ leen ci seen neutralité ak ci objectivité. xam nañu nit ki ñu condamné par contumace soo liiree les dispositions du code de procédure pénale article 307 qui est l'ancien article 341 de l'ancien code loolu lu mu wax une personne dès qu'il est dès qu'elle une arrêtée une personne condamnée en contumace c'est un contumax qui est arrêté cette arrestation anéantit la condamnation loolu loolu je pense que on n'a même pas besoin d'être un juriste pour comprendre ça donc moom tey say su taxawee naan euh, la condamnation bi mu jëlee dans ce dossier là c'est la condamnation est définitive je pense que loolu waxu partisan la peut-être day wax day wax pour dalal xelu patron am mhm. parce que patron loolu la bëgg a dégg je pense que Macky Sall nelawatul yendalatul à cause de ça Maître. parce que ñoom leur seul souci moom rek su ñëwoon élection dem ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko du yendoog moom <laughs> waxuma la fanaan mais du yendoog moom d'accord léegi 18 heures 18 heures ñu xam fan la affaire yi faytee. léegi asantuma nag asantuma asantuma ñu mu andi. Mhm. suqam.